projet boo xam day gis nañ diagnostic bi maintenant di ñaan yàlla rek population bi approprié ko parce que li ñu gis légui moy vraiment gis nañu benen étape bu ñu franchir surtout nak dans tous les secteurs surtout la vision quinquennale bi nga xam amna solo donc lolu motax fi mu nekk ni euh liko lal yëpp li ñu gis moy la bonne gouvernance parce que Sénégal projet yag na fi dynamique yag na fi mais suñu problème fondamental la bonne gouvernance defe na projet bu toll ni bu ko Sénégalais yi jëlee approprié ko je pense que li ñu ciy xalaat yëpp yàlla na def donc ñu ngi ñaan yàlla rek sénégalais yi jël ko seen moomin approprié ko wax gis nañu en tout cas des des pistes de solution yoo xam ne mën a Sénégal ci situation bi nekk. en tant que maintenant moi, accentuer les réformes dem ci assemblée nationale boo xam wax dëgg projet bi dina ko accompagner parce que bu ñu amoon assemblée nationale bu mën accompagner ce projet là dina am ay gàllankoor loolu moo tax may wax sénégalais yi ci élection yi jëm ñu fexe ba accompagner vraiment ce projet pour Guinguin. Donc nous, en tout cas, en tant que citoyens, en tant que députés, en tant que tout, tout, tout pour accompagner ce projet. Nous ci am euh, mbégte bu baax a baax a bettu ñu itam surpris parce que le président de la république bi nga xamee ne jël na gouvernement le secteur privé la njëkk a biñ ko fekkee mu wax ñu politique am ak fi jëm bo légui amul benn heure bu muy bu muy am lu muy def te du woo secteur privé d'une manière globale donc li ñu def moy lii ñu fi def tay euh té diko def ngir li ci ëpp particulièrement secteur privé ñun ñëpp contane nañ ci politique bi mu fi def xana di ñaan ñun ci suñu bop ñu organiser par rapport à ça nga xamné luñ dan joy moy lu fi am ci ay liggéey dañ koy jox secteur privé et bi biñ koy jooy ba mu jox ñu ko normalement dañoo war a góor à ce que li ñu doon jooy ba mu jox ñu ko bu geesoo gis ko ci ñun. en tout cas ñun kontaan nañ ci lim ñu woon te insha allah fas nañ ci yéen a jàpp parce que moom dafay mën a définir politique bi mais ñun ñoo koy matérialiser te secteur privé d'une manière globale kontaan nañ ci li mu fii def te danañ ci jàpp lu ñu mën ak lu ñu mënul. waaw mais revendication yi euh, dafa teel. ñun liñ mën a def ñun ak ñoom ñu ànd puuf ba li nga xam ne moom lañ woon ñu matérialiser ko parce que bu ñuy revendiquer le passé lañ war a revendiquer mais ki liñ jëm mënaguñ ko parce que wax dëgg yàlla teel na. ñun si ki ma concerné inaa ko waa Yeesal euh, bi nga xam ne dafa jiite quatorze régions quarante six départements en tout cas ñun li ñu li ñu li ñu xalaat mooy ànd ak moom ci processus bi ba lim ñu dig ñu matérialiser ko mais vraiment doléance mënut a ñàkk parce fekkee da jiite ay nit. boo ñëwee ci lu mel nii foog nga wax ñu dégg la mais li am solo mooy eh, lim ñu won ñu ànd koog moom ba bañ a egg fi ñu jëm. doole yan sax mënut a ñàkk. bi nga xamee ne ñëw nañu dañ ko diggoon sa doon demande social bi nga xamee ne ñëw nañ ci réew bi ñu woo ñu ñu def benn commission primature man 45 jours am naa ko primature pour ko jàpp ci commission bi pour que jege wàññi ko prix conseil yi ñu joxe ba fi may wax ak yow amul benn commerçant bu ko yokk ndaxte yàlla bi ñuy def prix yi fekk.

Le projet bi été euh, élire nañ le 24 mars 2024 mu jëlone liggéey bi le euh, premier ministre Ousmane Sonko nous avons ci ak ay compétences nga xamné Sénégal Nous fekk la ñu euh, opérationnaliser vision bi nga xamné mo ci projet bi mu tuddé ko agenda Sénégal 2050 donc mu nekk vision bu cohérente mais également vision pour euh, euh, bi nga dina Sénégal fo xam mom lañ fofu koy xaar mais ci lolo également, également mu jël les cinq premières années parce que pour mandat lañ ko euh, élire mu wax ci cinq premières années yoyu lan la nam def pour Sénégal et je crois que euh, le contrat est définitivement signé avec les Sénégalais on le jugera sur pièce dans les cinq années à venir les japonais également bu ñim ci ak xarañte bu ñu bu ñu bu ñu àndal ak euh, euh, intégrité bu nekk ci ñoom jàpp nañ ne normalement euh, il sera au rendez

Manam 2024 2029 euh, touché toucher tous les secteurs d'activité euh, de, la nation. Mais euh, je crois que euh, non seulement c'est ambitieux mais c'est réaliste. Donc normalement si 2029 vraiment sénégalais bu nekk di nga donc je crois que c'est ça qui est le plus important. Voilà merci. choix bi ci man daf ma dikkal rek man fi mu toll nii rôle buñ ma munti jox suñ ma expliqué te comme miin naa liggéey bi euh, day yomb jëf ci man c'est-à-dire dans la compréhension day yomb jëf personnalité bi may wone nag damay proposer rek su fekkee noonu la nit ñi ñoo koy jël su dul noonu it danañ ma laaj ba mu tekki leen ko ba xam. ñu xam lan laa ko duggee ak nag laa ko jëfee lan laa xalaatoon. bi ñu la proposé ne yow moomee la ñu tànn ak xale yi nan nga ko dundee. dañ def casting. dañ ma woo def casting. bi ñu defee casting bi bon. ba euh, dégg ni réussite casting boobu moo tax ñu woo ma tànn ma ci ay nit. amoon na ñuy fa nekkoon mais du ma rëylu. ci ne tànnuñ leen man la ñu tànn déedéet du loolu. est ce que ñenn ñi duñu wax ne yaa doon défendre Ousmane looloo taxoon recevoir. non non wéetali féetali wuñ ko fa te loolu Ousmane sax bëgg ko. Mm-hmm. ko xam jikkoom bëgg ko. Mm-hmm. moom ñi ko gën a jege. Mm-hmm. ñoom lay martyriser. te man loolu dama ci d' accord parce que day da xam nit ki nga xam ne moom lay jëfranteel. fan la toll ci yow parce que fii dañoo neexi wax neex làmmiñ. bëgg naa Ousmane bëgg naa Ousmane Ousmane jóg rek. def ben affaire nga jékki-jékki wéeru ci lool rek dal ni waw mi ngi ni wax ma li wax ma la nangam nangam pourquoi mu may wax li ak ki mu xam sa jikko ci bi bo nek mom bo nekul ku mën muñ do len yàgg do len ànd bo nekul ku mënul tek aussi tamit nan ko ba xam fi muy waxe fan la waxul ko ngir yow daf ko wax ngir nit nit koko nak bu jotay wax di mom dana xam parce que bu fekk ne mom mu wax yi muy waxantel ba paré yow bo jëliwul ah parce que nit ki boy ànd ak moom da nga naan ko xam mais soko xamul ko jarul ngay ànd ak moom. ñu des wa ci Sénégal 2050 jël la yow ak ak ak ñaari xalé ngir ngeen wone lolé mhm. euh, tay bi ñu la présenté projet bi ak jàngat bi ci am ban yaakar nga ci am ci Sénégal bi nga xamné mom moom xaar ci gouvernement bi manam ñi fi tok projet bi dañ ko bind en français. Mhm français googule mom lañ ko doona def buñ démé ba ci biir woowaat ma daal ne ma affaire bi kat waxon nañ ni français lañ koy def mais légui wolof lañ koy def ce choix là je n'ai rien à voir là-dedans parce que dañ ma jël pour ma liggéey benn liggéey man luñ ma ci wax mom lay def alors biñ ko changer def ko wolof bind ko ci wolof ma jot ko ci jour bi nga xamé ci la wara tourner ma ñëw comme wolof jang na ko aussi écriture wolof même lu ma bëgg tey mën naa ko ci def dama ciy def rédaction dama ciy def lu ne bi ma liiree wolof bi am na ci baat yoo xam ne jubul sax mais man maa ko tekki defar ko ba mu njëkk jàng ko jël ko def ko moomeel maanaam euh, euh, ba mu mokk bi ma ko mokkale nag ci la ñuy def liggéey boobu dem nañ ba ci biir sax taxu ko woon a jeex totalement il a fallu que le lendemain descende euh, dans la journée de Rome. le matin comme ça on que renvoyé nous une affaire bi ndax a fait, comme on euh, ngi fait on nga bu de affaire bi gars affaire comédien vous parlez sur scène sur le plateau du feuillet. loolu rek la. ndax ya am nga yakar ci li ñu jaay Sénégalais moy projet 2050 bi. bu baax bu du woon dëgg duñ ko jaay Sénégalais dafa nek ni nak Sénégalais moo naqaree waxal xam nga li la dafa nek ni Sénégalais dafa naqaree waxal parce que boo nee un mu ne du un deux la bëgg wax. boo nee sax mu daan ne déedéet 4 le bëgg a wax daal di euh, ci 1 bi dafa delu ci wat dengue lo wax dañ ci duggal sen lamine dengue euh nga bal ma parce que dama do nuyu sama xarit. dengue euh, donc euh, noonu la démé il faut comprendre les Sénégalais. cet esprit si tu n'es pas réellement sénégalais pour nga tek sénégalais waxam day jafé donc noonu la démé mais man dama naan alhamdulilah rabbil alamin parce que ñun ñi def théâtre waxuma ko def théâtre rek di nga mën a waxuma lool parce que xel dañu dañoo mais li ma wax moy nous avons vraiment euh, espoir et euh, courage par rapport à ce qui est am Sénégal parce que nous avons bu nous ayib la nous sénégalais donc euh, comme nous président de la république Bassirou féliciter le président de la république pour son vision di féliciter le premier ministre Ousmane Sonko nga a supervisé moom moo superviser liggéey bi ak sénégalais nous ñu bokk ci secteur public nous ñu bokk secteur privé nous avons xam ne pour nous présenter Nous côtés. une mu une vision une avons vision bu projet que le président Bassirou Diomaye Faye présenté présenter sénégalais ak ay axe wax nañ ko axe la axe priorité par rapport aux sénégalais donc euh, vraiment am nañu yaakaar te léegi lu ci des mooy sénégalais yëpp jàpp ci ku nekk daf ko sa référentiel ku nekk daf ko sa agenda ku nekk daf ko sa plan d'action ñu bañ yakar ni rek lépp ci nguur gi la wara joggé ñun ñu tok di xaar donc ñun suñu liggéey en tant que parti politique suñu liggéey en tant que citoyen moy expliquer ko sénégalais vulgariser ko pour sénégalais comprendre vision bi comprendre le référentiel comprendre l'agenda de transformation pour mon une réalité dans les cinq prochaines années parce que le président euh, premier ministre wax euh, vision la sur les 25 prochaines années mais nous Sénégal yi xaar 2050 parce que dès l'année prochaine dès 2025, nous avons la loi de finances de baisse dina ñëw en tout cas action nous avons loi la loi de finances de 2025 donc moi tax ñuy ñaan sénégalais yi par rapport à cette vision par rapport à cette ambition Nous ñu le président de la république Donc une majorité confortable à l'assemblée nationale. parce que suñ ko gëmee Inshallah, nous lu ñuy gis Dubaï lu ñuy gis Corée du Sud lu ñuy gis euh, Singapour lu ñuy gis Malaisie nous nañ ko gis Sénégal mais day fait, comme nous sommes premier ministre waxee ak président de la république ñu am ay njiit yoo xam nous am nañu gis-gis jub nañu mais am askan woo xam nous tam day gëm boppam jàpp ci liggéey bi.

suñu paree ñu dugal ko ci agriculture suñu paree ñu dugal ko ci industrie méthode boobu la ñu indi muy méthode bu bees boo xam ni dañ ci yaakaar les ressources endogènes mooy secteur privé nan lañ koy dooleelee ak diaspora bi loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu mën a déggee ci mbir mi mooy investir ci école investir ci capital humain fexe ba fi ak juróomi at vision bi 2050 mais juróomi at yi nan lañ koy doxale loolu la président ak premier ministre doon euh, présenté tey mu nekk lu ama am solo ñëpp xam ni lii changement yu bees la dinañ xeex dette bi nga xam ni bor bi nga xam ni fekk nañ ko fi ba wàññi ko ba retrouver suñu crédibilité am ay marge budgétaire yoo xam ni dina tax ñu mën a investir alal ñu fi am muy pétrole gaz ak yooyu yëpp ak miin yi bala ñu koo joxeeti ay nit di ko yóbbu ñu jéem a xool nuñ ko fiy soppee ba pare jéem a construire ben modèle économique modèle boo xam c'est basé sur ñun lan la ñu am ak lan la mën ak lan la xam mais dootul basé wu modèle boo xam ni lépp ci bor la boo ñëwee jox ay entreprise étrangère ñu jël ko yóbbu. wax aussi ci gouvernance nan la ñu yoree réew institution yi ñuy defar ba période gis ngeen coow li fi élection yi ñëw kenn déggul DGE da nga fay dugg doo fa dugg donc wane nañ déjà par cette volonté de faire ñëpp bokk ci élection yi.

enrichir ñi nga xamni document bu provisoire la képp ku ci am xam-xam bo ci yok nga yok ko ñu fexé ba population yi approprier ko ba koo ni Sénégal fi ak 2050 fan lañ bëgg jëm di nga ko mëna wax yow en tant que citoyen looloo tax nak aussi président soxla une majorité à l'Assemblée nationale bo xamni mo koy voter budget pour mu fi mu bëgg a réew mi ñu yeggal ko fa donc population yi nañu xamni moment yi moment yi am solo la gis ngeen dajé nañ fi.

bo xamni dootul nek airu slogan dañoo émergent mais deugantane dañoo nek un pays résilient bo xamni ci bopam lay compter ak ressources yi ko yalla may pour développer réew mi et je pense que modèle bi bis buñ ci paré ci Sénégal sous région bi yépp dinañu mëna copier. moy document bi ñëpp jot ci jëm ko waxtaane parce que avenir u réew mi mënuñu ko bayé rek ay hommes politiques ñu génn aussi opposition bi mu leen wo ci ni jël leen document bi ngeen xol yéen ñu doon wax DPG DPG DPG japp nañ ni heure bi ñoo wax ay débat wu saagaame ay débat wu euh, euh, tapis rouge wala débat yoy léegi nañ wo borom xam-xam ni ñu occuper télé yi occuper média yi ñu wax document bi lan mo ci bax ñu jël ko luñ ci mëna soppi ñu soppi ko parce que au delà de tout réew mi ñun ñoko bok donc loolu le président woté jub jubal jubbanti mu nekk dans tous les domaines ñepp comprendre ko xamandoko et je pense que fii ak 2029 mandat bi di jeex dinañ gis les bases d'un Sénégal nouveau sur des fondements solides merci beaucoup. président de la république bo xamné yaakar yaakaar ji mu jur bi mu ñëwé ak lé kenn xamul nu mu toll légui nak tay mu ñëw jàkkaarloo ak sénégalais ginnaw bi mu waxé premier ministre ak gouvernement bi ñu def état des lieux état des lieux moy lan wax réew mi fu mu toll ak jafé jafé yi fan la toll parce que réew boko yoré ñi nga xamni ñoo la ko denk da nga leena wara wax deug mota amna na ñoo xam ni xëy nañ neneen mais ñëw wax état des lieux wax yef yi fu mu toll amna solo loolu motax ñu ñëkke ci wax sénégalais yi ci ñu fekk réew mi ak jafé jafé yi fan la toll ñu wax jafé jafé yi fan la toll ak nguuruk Macky Sall limu yaq réew mi bi mu yaq tay am te waxul lepp waye li ci ëpp solo rek la wax mom premier ministre ci fan yeenu genn tay nak moom premier ministre ñëw toog ànd ak gouvernement président de la république toog fekke ñëpp ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi ñëw toog fekke ñu présenté li nga xam ni moom mooy vision bi nga xam ni fii ak mille cinquante jéego yi ñu war a dox ñun Sénégal pour jëm ci développement jéego yooyu danañ wax lu ci nekk nan lañ koy defee loolu tey lañ doon def ñu am ci mbégte mu rëy parce que li ñu def tey képp koo xam ne nitu dëgg nga. xam nga ne boo ko comparé ak li daan am bi nga xam ne wuute na lool parce que ñun li ñu def teguñu ko ci naxaate dañ koo teg ci dëgg wax sunu doole fi mu toll wax jafe-jafe yi fi mu toll wax sénégalais yi ni jamono jii ngeen di nekk ñëpp ni dëkk bi dafa dëgër mais li tax mu dëggër mooy dafa am ku fi nekkoon lépp alal joo xam ne da ko doon nëbb sénégalais yi ab lépp alal joo xam ne lu ci ëpp da ko doon pasar pasaree lépp loo xam ne sunu koom-koomu réew attanu ko ba tax na tey sénégalais yëpp sonn léegi nag coono boobu ñuy dund nii di conséquence su mauvaise politique ak choix politique yi Macky Sall doon def loolu la président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey wax yan yoon lay jaar pour ànd ci ay saafara yan yoon lay jaar pour coona yooyu sénégalais yi di jànkoonteel nu ko mën a wàññee ba noppi xëcc euh, sunu économie ci boor yi nga xam ne moo ëpp solo muy xool nu muy suqalee mbay mi nu muy suqalee napp gi nu muy suqalee eh, xëyu ndaw ñi nu muy suqalee dundinu doomu aadama yi nu muy suqalee paj mi nu muy suqalee njàng mi lu ci nekk mu wax yan yoon la koy jaarale teg ko nag ci juróom-ñetti pàcc yoo xam ne moom la bëgg a xaaj réew mi bu ci nekk mu wax la yow la nga am doole nan la ca la nan la la cay fekk see muy ay pôle territoire yoo xam ne ku ci nekk dina fexe ba sa koom-koom yokk ba lii am ci réew mi nga xam ne li ëpp ci alal mi ngi diggante ndakaaru ak dëkk yi jege ndakaaru waaye dëkk yi sori ndakaaru yëpp dañoo na ci ndóol gu méttee métti ñu ne nu ñuy def ba yemalee sénégalais yi bokk ci nekk li ñëpp bokk nga gis ci sa bopp ñun ñëpp ñu yëg ni am na nguur gu bees gu am ci réew mi man jàpp naa ne yaakaar judduwaat na yaakaar jud naa jàpp nañu yàlla dinañ ci defal ndam opposition bi daal bu dee bëgg nañu réew mi

Euh, euh, économique loolu la président Bassirou Diomaye fay tey présenté won sénégal yi leen jafe-jafe yi métti na li ngeen di dund métti na waaye yaakaar juddu na ndaxte naam réew mi fi mu toll métti na yàqute bi foo ko natt weesu na ko waaye am naa gis-gis boo xam ne fii ak ñu jëm deux mille cinquante maanaam ñaar fukki at ak juróom yii ñu jëm ça ne veut pas dire ci tappalekat yi naan fii ñaar fukki at ak juróom donc ñëpp dañuy muñ du loolu dani budé fukki e, état lañ wara def pour Sénégal mëna développer développé wu deux mille nañ ni ñetti wër yu né juroom benn wër yu né dañ fexé ba benn état ñu tabax ko di ko tabax ndànk parce que réew do xey xey rek lépp matalé kon nag lool lañ bëgg wax sénégalais nañ and ak dal am yaakar wolu nguru président Bassirou Diomaye fay ndax ndaxte gëm nañ ni bu fekkente ni juróomi at yi nga mom lañ ñuy njëkk naté ak coppite yi ñu def yépp ak sellal gin bëgg a sellal alalu réew mi am nañ yaakaar ci ni bala moo yàgg sénégalais dinañ gis ñoo ngi ci yoon